كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ci ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi Sëriñ Tuubaa tey ci kaw suuf ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak biir mboolem sumbul ak naari wuri yu mu am ci lislaam am ko ci yoon suñ boobu may fekk kàttan ak jàpp lépp mu mot ci ko fi ñu ko bëgg ci bàkk Sëriñ Tuubaa yëkkati kàddu yu ñëw ak kàddu yu cant ak ngërëm jëmee ko ci ganam bii di président de la république Macky Sall président sëriñ bi na ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la sant di la di nuyu itam sa soxna ci soxna Mariam Faye nga xam ne moom itam sëriñ bi xam ne yitteem ak taxawaay bi ci moom ak jàppam ci lu yàgg ba tey xam naa dinaa ci dellu si waat yu yu bant ci yow di nuyu mboolem délégation bi nga àndal bépp te buñ la tuddee rek mu ma a yóbbaale njëriñ si ñëpp ndax bëgguma lim di fàtte waaye ñëpp itam di ay jàmbaar ci biir kër gi di jàmbaar ci seen digg sëriñ bi kenn gisut kenn ci ne la rafet bu baax a kon nag sëriñ bi wax na ne ñu ngi lay dalal jàmm fii ci Touba ci waajtaay bis bi ñu rek fi àdduna toll ak fi waxtu wi toll moo tax ku ne xam ne ne demeewul nam daa demee ndax mënoo tere dara bala koo dutu di ko wotewaat te xam ne ne xat na moo taxoon sëriñ bi yónnee ci kilifa yi nga xam ne ñëpp ay rakam lañ ci des ñëpp di ay leen ne kat ren ndax nag moom fi toogee rek teewaale nga fi njaboot Sëriñ Tuubaa yëpp ñoom ñëpp itam ñu maase ci xam ni fépp foo sëriñ bi nekk wala ko agsi ci moom ku ne rek agsi na ci ñoom ñëpp donte ne kenn ku ci ne yónnee na fa sa ndaw sëriñ bi itam xamee na ko noonu rafetlu na ko bu baax a baax kon ñu ngi ci ñàkk a mënta tudd rek mën a yóbbaale ñu gis ñëpp mooy sëriñ Issa xamante mi nga xam ne ñu ngi fi jotaay bi ak rakam sëriñ Abdou Fatam rakam Cheikh Mamadou Fadil bu yóbbaale borom njaboot Sëriñ Tuubaa yi fi teew lépp mu mën a yóbbaale ñëpp bis bii nag di bisu Sëriñ Tuubaa xam nañ ne moo la yëkkati ngir ànd ko ak sëriñ bi mooy bis boo xam ne dafa rëy ci moom ndax lépp lu am rek ci lañ ko am ndax bis bi bu Sëriñ Tuubaa demutoon ci géej gi li ko waxee kon ñépp dañuy tàbbi ci kéefar lislaam par kon nag dafa jot lislaam tax ñu moom suñ bopp kon bis bii lépp lu am ci ko amee moo tax nag sëriñ bi fonk ko lool xam ne sëriñ Tuubaa moo ko santaane woon te daa ko jëfeel bu ko lépp mu delloo ko ci yàlla wax ne na ko ci sant la yàlla ba mu nekkee ca liggéeyam ko tedd ba ca nattu na la ko tàmbalee yéene wax ne katabtu yow ma sotti inda galwa baada jihaadi wa firaaxi balwa الحمد لله الذي قد بال لي العدا والساق لي أهرابا فزت لدى جلوى وعند بأفلي بما جيئني كل مأفل من نمك ابنتي وخلينا نويت شكره لدى دار السلام وعند توباي بجسم وخلام وانا كفو بري بري kon loolu mooy bis bi nga xam ne ci la suñu doom jeexal na tam yëpp mboolem lu mu amee ci la ko amee kon nag Sëriñ Tuubaa ci jikko jikko suñ doon defal te mu wéete mooy la ko kenn ci euh, de cercle bu nekkoon Diourbel te ñu bari xam ko moo tuddoon Antoine euh, Lazare euh, ci 1918 rapport bu am solo bu mu bindoon ci Serigne Touba wax ci wax ju am solo wax nee na Serigne Touba suñ borom defal na ko kuuba na mooy force boo kenn xaw suñ junne nee na itam topp gi ko nit ñi topp itam jéggi na dayoo ba kenn mënu ko misaal ci mu xel nee na jural na leen itam lépp lu mu leen digal ñu def ko te duñ ko te te duñ ci xalaat mu ne si Ahmadu Bamba mii nag maa ngi seere ci moom ne ñi ñu jëkkoon di am yor mursalin li ñu màgg màgg ak li ñu siiw siiw bu ñu dellu si waatoon dañu ñee Sëñ Tuubaa ci jikko yi ko yàlla defal mais yi rek mooy yéen ñëpp jàmm xam ne wul ab soppee ak noonu loolu waral Sëñ Tuubaa bis bi nga xam ne ci lañ ko jël natt ko mu jël ne jéggal naa sama noonu yëpp waaw fawtu alil aadaai turan asimon dafay hum li xëyri samata des ak ba noppi ñaanoon suñ borom itam ne ko bu ma tukkee ba ñibbi si xéewal yi ma fa jëlee yëpp yàlla na ko jël sotti ko ci mboolem sama askan muy Sénégal yëpp nga xam ne yeemaloo ko ci ñu ko yaakaar waaye képp kuy nekk Sénégal yëpp Serigne Touba fàggu waale ma ci biir ñaar mu wax ne lii aw si li des yi wuri du wan fa ay liyal wala yaa mu xam ne ak ñu soxay kon loolu mooy bis bi nga ñëw tey kon Serigne bi ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm ci sa liggéey ndax loolu suñu rasulullahi sallallahu alayhi kon nag nee na suñu borom yi dogal moo leen boole jëkk ngay ne ci jataay bi moo itam njëkk bu doon ci jataay bi mu gis ne am ci yow yaakaar am ci yow ak cofeel gis ak sa teggin ak fonk gi ko fonk te ba mu la xamee ba léegi tamit gisutoom lu mas a soppiku ci loola ba yàlla def nag mu nekk jotaayu Sëriñ Tuubaa bu nekk jotaayu Sëriñ Tuubaa bi itam nee sa yaakaar dolli ko ci moom nee na mu ngi lay sant di di ko seere taal yëpp ni mu ko waxee woon ci bi muy woote màggal wax ma ci lam ñe lam ñëw itam lu ma ko sant rek li ma denc sama xol mu ko ma suñu moom jàmm ma suñu dara ci fitne du assi ci moom loolu nag lépp lu ma ci man ci ñaan ak taxaw ko dinaa ko def kon nag nee na sag cant si digg moom ndax li ko waral li tam nag ginnaaw bu cofee bu doxee seen diggante moom njabootu Sëriñ Tuubaa gi dem ak taalibe yi nee waxtu wu ne mi ngi ma yónni ci yow bi la wax wax ay yitte yu jëm ci njaboot bi nee bu sañoon nag ni muy doxale sa digg moom mooy dalay may may jàmm du du la du la wax jenn soxna ndax bëgg nga mën a def sa liggéey kon lépp lu mu yëkkati teg la ko rek ci yitte njaboot bi la. mais nag loolu du ko suñu tamit ndax moo fi bàyyi. ba soñoon njabootam gi ne ci seen ginnaaw ñëpp kenn du ci nga def. mais nag kon nag cant gi da ci jiitu mooy li mu lay sant ci bi lu ci ne nga def ci ba def ci lu mu kon loolu la nee na faaw cant gi mu bëri ko ba ñoom ñu ngi ko seqal ñoom kon nag nee na ñu lay seer ne lan la waxoon rek. Serigne Touba bi nga xam ne moom lay jëfal na nga xam ne jëflantoo kenn ku dul moom moom bi nga jëflanteel nag na la wóor ne bu la fayee saxul dana sedd te li weesu itam xam nga ko ci kon nee na sam xel dal te sa yor rafet ndax dëkk bi kat yëg ne sumb yu yi nga xam ne def nga ko am na ci yooyu ci lim waaye am na sax yoo xam ne fàtte nga ko lu mel ne këri 30 bi nga xam ne mat na 11 milliards ak assainissement bi nga xam ne ñu ngi koy def ak yeneen ak yeneen yu bari yoo xam ne teewlu ma ko waaye bu ñu toogoon di ko lim xëy na bu màgg di jeexee ba ñuy leeral danañ ko gën waaye sëñ bi yëpp leer na ko sant la ci gërëm la ci kon nee na ñu ngi lay ñaanal ci yàlla ci barke Sëriñ la kàttan dolli la gër leeral sam xel ba yéen nga xam ne am nga ko ci réew mi ak li nga bëgg ànd ak moom liggéey Sëriñ Tuubaa bi suñu borom dimbali la ba lépp nga mos li nga ko bëggee. ci barke suñu Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf xanaa président leer la teewaayu Atou Diagne ak is bu tarxee taxawaayam rafet lool sëñ Fallou Mbacké transfert di kenn ci yow ak sa soxna ak sëñ Basiru Mbacké xaañ aw ba moom it di kenn ci yow